maa ngi di nuyu di leen ziar ma wax ne jënde bu reppee ci xare lu mu géñ xeb ko gannaaw Macky Sall nanguwul dogalu suñu boroom dina nangu par la force dogalu askanu Sénégal loolu mooy Macky Sall ba léegi ku dëgër bopp la te troisième mandat dañul ci bopp bi dañul ci xol bi tey dama am sentiment de satisfaction ci discours Mimi Touré ak Yacine Fall jigéenu waalo boobu tey ay vrai discours laa dégg muy ñaari jigéen ñooñu ma leen di encourager may wax ne Macky Sall suba incha allah ci kàttanu borom bi bëgguñu dégg ci yow leneen lu dul nga jël say wëlis après le vingt cinq février nga génn réew mi yaax sa njaboot Macky Sall sonal nga ñu Macky Sall toppe nga ñu mbooro Macky Sall tere nga ñu nelaw Macky Sall may ñu suñu afiya Macky Sall may ñu suñu jàmm waaw Macky Sall yow lii lan la yow yow lan nga bëgg enfin gannaaw nag nanguwoo dogalu yàlla dogalu askanu senegal dina wàcc ci sa kaw par la force loolu mooy nit ñi na ngeen jàpp seen tele ak seen rajo midi leneen lu fa Macky Sall wax te waxu fa waxu ne élection dina am dina ko organiser wax ci fichier bi na ngeen jël seeni mbolde na ngeen génne rassemblé wu maa ngi woo armée bi ak gendarmerie ñu rangé wu ci côté peuple bi te information yi ma am mooy ñu bëri ci armée bi ak ci police bi Macky dina am mbetteel ci ñoom Macky nag bu reppee dret dina tuuru ci pale bi parce que mbir yi li muy xeeñ neexul le peuple est souverain respectel peuple bi réew mi moomoo ko bàyyil suñu réew waa lii lan la xanaa lii xanaa lii du jàmm Macky Sall lan la bëgg yow lan nga bëgg yow président Macky Sall maa ngi woo jeunes yëpp maa ngi woo Sénégal yëpp maa ngi woo force vive de la nation yëpp ngeen génn def une forte mobilisation ngeen wan Macky Sall buyu bëccëgu ndare kàmb ba buy génne pale ba dina fa fàtte ay dàllam parce que trop c'est trop yow Karim Wade ku yëpp sénégalais yi nga yow yow ndekk da nga nëbboon sa nationalité sénégalais yi yow tappalekat nga tricheur nga bu la Thierno Alassane Sall dénoncé wul woon kon sénégalais yi du ñu xam ne double nationalité nga am Rose Wardini tamit ku yëpp sénégalais yi nga yéen da ngeen bëgg a jiite Sénégal am benn xol Sénégal am beneen France nga xam ne bés boo leen jiitee Sénégal ngeen yilif Sénégal président tubaab ëlbatiku nekk seen président yilif leen loolu duñ ko accepter mukk réew mi bu mu njaam gi moom day dagg par la force bu mu njaam gi dafay dagg dama ne Macky Sall lu mu leen wax suba te waxul leen ne leen élection dina am na ngeen génne massivement ci mbedd bi lu waaye am na nga ko génne jël leen seeni mbolde jël leen seeni kuur jëflante leen ko ak moom ba mu saf sap gannaaw nanguwul dogalu yàlla na dogalu askanu Sénégal wàcc si moom kii moo ñu sodal waay